bisimilah. waaw tey nag point ponk bi am solo bi nga xam ne askan wépp bàkkee nañ la ko mooy ni seet moom kenn dàqalu ko da nga koo cat nit ki bari na lu muy wut loo xam ni du ko am cat moo ko gàllankoor bitéel bii muuru boo ko sangoo cat day dañ ci yow moom sit wicc si bitéel bii hmm. boo ko sangoo ñetti fan day dañ ci yow moom sit wicc macha allah loolu moom daanaka du ma yi mi ngi noonu képp ne cat sonal na la ngay yaakaar muy tas wala nga umu hmm. ñëwal seet Serigne Touba si numéro yaay ngi noonu di affiché ci écran bi ku ko woo di nga mën a jëflante ak moom muy borom xam-xam boo xam ñëpp ràññee nañ ko sëriñ bi ba ci tey itam wàllu sëy yi nga xam ne dafay gaaw a tas wala ñi nga xam ne dañuy takk soxna rek yàlla dogal duñ ci a am doom loolu dégg naa ko ko mën nga it sëy yi xam ne ab sëy dafa nekk loo xam te ne nit ki bala ko ci dugg da ko war a xool xool maanaam ba xam ñoom ñaar seen biir ànd na wala ànd waaye ab sëy doo tëb tëb dugg ci loolu waral maam di forcé yi bari loolu nañ ci bàyyi xel ab sëy da nga ko war a seetlu ñetti fan ab sëy bu la seet da nga ko war a seet ñetti fan nga ko war a seet ñu mën na ci leer nañ bu dee ay sar la nga génn ko bu dee mu nekk dañ la ko wan daa mhm. may dégg mhm. nga xamante ni tamit góor ñi nga xamante ni maanaam dañoo tëre mhm. ba mënuñu am doom ba seen yëf tamit gàtt na lool macha allah jël bii ku ma ko ci jox jël baa ngi nii ku ma ko ci jox ba nga jëfandikoo ko insha allah taala soxal dana seet waaw ba tey ba tey sëriñ bi kon góor ñaa ngi noonu biteel boobu mooy kër gi kon góor ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu xaw a gàttale wala ñu xaw a néew la kàttan nañ ñëw ci sëriñ Touba si mu fàggoo dun biteel bi di borom xam-xam boo xam ñëpp xam nañ ko kon beneen bi nga xam ne ci lay ñëwaat mooy wàllu muudu muur yi suñu mbokk muudu muur yi nekk réew ma papier bu ñu mën a am ngir liggéey fa ak war a ñibbi seen njaboot da leen xaw a jafe loolu moom ndax dañ ci yëngut ak noo koy defee wàllum papier moom ak ku mu mënti doon réew ma mënti nekk doon këyit wala bu mënti doon rek yow